ànd ak sama mbokk mbopp mi di sëñ si dem sëñ Abdou Khadir nga xam ne ñaari at mu jot ñooy ànd ñëw fii ngir tëbb si leer sàkku si ngërëmu sëñ Touba ak dundal bis bi ni ko sëñ Mountakha di defe sëñ Mountakha nag day nit ku am solo day nit koo xam ne day yokk pas-pas te lii bëgg pas-pasu taalibe bi yokk yi moo tax mu di ko def ndax xasida dafa bokk ci batale sëñ Touba bokk ci liggéeyu sëñ Touba kon fuñ daje di ko fa jàng aw yiw rek lay doon rawat nag ñu koy defee ci kër sëñ Touba mu teew fi taalibe yu teew fi ñi koy jàng itam di ñu dégg daaj di ñu mën a jàng am fa saatu lisaani am am am am am am amuk taalibe nga xam ne seen seen seen mandarga yi rek seen yére yi rek day dolli pasteef ndax ki ko moomoon ngeen doy ko ci moom ci taalibe la doon xëy di ci gont kon nag lii day dundal yoonu murit di ko suuxat di ko labbali xam nga labbali luñ fóotoon ba mu set ñu gën koo fóotaat mu set sëñ Mountakha dafa nekk ci dafa tool ci labbali yoon wi kon nag ñëw gi fii daal dañ ci am mbégte am ci bànneex te xam ne njëriñ rek la ci noonu waaye njëriñ la ci taalibe yi njëriñ la ci julli yëpp sëñ Mountakha julli la fi nekkal waaye taalibe yi sëñ Tuubaa yëpp la fi nekkal mi ngi def lu yokk diine pas-pas def lu yokk taalibe pas-pas waaw jullit bu xool ci moom da nga da nga soññ sa bopp ndax fi mu toll jàdd dama koy wax toujours ku am ba am juróom-ñett fukkat yenn jotaay yi ma des na koo jégal waaye këram moo fa jiite juma jàkka ajjuma mu ñëw ci juma ji jiite nu ànd ak ñun ci xasida yi gàmm itam noo koy def nii ba bët set kon moom dafa niru baayam ci bëgg xasida ndax sëñ Basiru ay jànkatam ay sëfooram ay bëkk na yëpp ay jànkati xasida ndax dafa bëggoon xasida ñoom baay joxaane ñoom waaja faal nangam na bari na Alaaji Cissé mi ngeen di roy ci la bokkoon moom sëñ Sall daana ma ko wooloo ci pencum daal anti fii ngir dongee di ko roy kon ñoom dañoo doon xasida soo defee lii nag def na la war a def ñi ko wuy si def na ñu war a def ñëpp ko ci war a fekk ndax ku baax bëgg jaay jaay war ngaa ñëw ci lii ngir sàkku barke